benn côté bi mairie moo ko tëj benn côté bi promoteur moo ko tëj marché Thiaroye di pàcc soble bi ak pàcc naaje pàcc tamaate kenn mosul leen a dégg ci benn bras de fer mosul am. léegi li ñu bëgg mooy mairie bi ñëw na tey ñëw na tey d'accord na ni dina ubbi bunt yëpp dès lundi ñu ne ko comme di nga ubbi bunt yëpp dès lundi lundi boo ubbee bunt yëpp talaata dee ñu commencé fay. te dañ ko tëj pendant trois mois noonu man la bi ñu bañee fay jotee léegi ça fait vingt jours. ce noo ngi doon xuus ci biir ndox mi canal yi déjà commencé nañ ko defar mais àggul parce que canal mënu ne ci suuf canal bala mu baax carrément fa ñuy def canal ba day am tali encore boole ci mais canal ak suuf mënul déggoowuñu mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf personnes moo fi ne di fi liggéey waxuma la les bari ñu bokkuñu ci les porteurs porteurs yi bokkuñu ci yooyu docker yi bokkuñu ci boo ci boolewoon docker tey day dem presque trois mille et quelques ci pàcc soble rek laa wax de waxuma pàcc yi des nag pàcc bu mel noonu état daf ko respecté te pàcc soble bi état Sénégal def ko respecté amul benn ministre buy jaar ministre commerce depuis Aliou Sarr jusqu'à présent ci fii ma fii ministre yëpp dañu ñëw fii ci man. réunion bu ñu dem aussi que li ñu wax li ngay xamante ne moom la état di wax pàcc ci ca Dakar Thiaroye mooy numéro un loolu la état bi di wax Gueule Tapée topp ci. Paco caari bi dafa am fu ko état Sénégal teg buñ ci ñëwee ci suuf si suuf si Ablaye Wade moo nu ko joxoon parce que Ablaye Wade moo créé centre commercial moderne ni ak pak ak PAC. promoteur bi ñëw tibb suuf si moo nu indi relation bi parce que moo tibb suuf si tabaxe ko. léegi nag waxtaan nañu bu juboo ci biir bokk. ak ay xarit yu fi nekk ñun mën nu tàqaliko mm. jamais au grand jamais duñ tàqaliko mën nañu réeroo tuuti rek mais dañuy defaat retrouvaille bu nu yàlla dimbalee sax mi ngi naan altine mais bu nu yàlla mën loo tey tey ci ngoon am na ñu ñuy seet pour waxtaan ak ñoom ñu mën na indul peel indil lu benn benn ñu dégager yoon yëpp ñu ubbeeku li ci des ñu xool nun koy defaraate ba mu gën a rafet muy potopoto poto bi ban bi yëpp ñu jéem ko tonni ndax loolu lañ fi ama ah, amuñu fi leneen non jeex na à partir de lundi maire jël na ci ay charge mu waxtaan nañ ci léegi ci lépp saye waaw lépp say daan dox la lépp mu aw yoon kenn dootul am problème